ñoo war a ànd boo ci firee benn rek firi nga ba ca des lan mooy différence diggante muxtadiru ak qaadiru muxtadiru moo gën a jot ki am kàttan ba nga xam ne kàttanam desut ci benn côté qaadiru nag mooy ku man ki man lool mooy muxtadiru tur yàlla wii nag li tax mu garaaw mag ñi boo boolee al qaadiru al muxtadiru xam nga daf lay jox 1111 tur yàlla woy ju boole mu jox la 1111 ci asmaulaahil husnaa yi ñaari tur yi rek la wëral yëpp nag dootoo ko gis waaye nag fii bu boobaa danga ci boole ñaari lii ak ñaari làmmi képp koo xam ne kii incha allahu tur wi xool nga ko xoolaat ko seetantal ko fas yéene jaamu ci yàlla jokkoo ci sa borom subhaanahu wa di ñaan katan bu manki ci yow nga bugg mu jox lako katan ni bul ci ben xam nga al muxtadiru ak al qadiru ñoom ñoom ngi bàyyi ko ci khudra bi firi katan qadiru inna la ala kulli shay'in qadir ñaat yoon la ñëw ci qur'an qadiru mu ngi bok ci melokaani yalla yu maggi mom qadiru ak muxtadiru ñu nga yalla mu ngi ko takale boole ko ci ndimbal ci katanam jëlee ko ci qudra qudra mooy kàttan muxtadiru nag moo gën a jot ismullaahil qadir nag bokku ci ñoo ne ci alquran lu bëree bëri inna allaha ala kulli shay'in qadir wali ku ñaan ba pare foog nga ñaan ne wax ne innaka ala kulli shay'in qadir waaye bokku ci 99 tur yàlla yi nga xam ne ñëw na ci alquran waaye nag maanaam 99 yi nga xam ne ñëw na ci sunna waaye nag ñëw na ci alquran moo tax warada fi ayati alquran alkarim akthar min thalathina marra ismullahi alqadir mag ñi sax ca lañ jëlee woon aaya yi nga xam ne <clears throat> mu ngi jeexee ci xadir <clears throat> muy juróom-ñaar ñu tënkee ko fokku ja max max max max max <laughs> fokku ja maxat mamaxat fokku ja maxmaxat benn bu ne faagi mooy départ bala fam suuf fi ma naag ba ci xaaga mooy xaalidiina ba ca inna laa ala kulli shay'in qadir yooyu bi yadil mulku wa ala kulli shay'in qadir lazi bi yadil mulku wa ala kulli qadir noonu la wallahu qadiru allazi yaqdir ala ijaadil qudra nag buñ koy wax mooy fekk loo xam ne li xamut nga amal ko ko kenn ko man mooy yàlla buur bi wala président bi wala borom xaalis bi lum am am force lu am am man da amal lu lu am ba pare waye lu ñak nag kenn mën ko amal ku du yàlla bon nak moo tax benn mag mos dama wax ne ma ah, xaadiru trois la mo qaharu ben moy sen difference waye qadiru bobu ngay koy liggey ba muy ñen fukki fan ak ben bes bu na nga def ko ñen fukki yon ak ben la nga ca doon soxla lu mu rëy rëy xudra yàlla moo ko ëpp moo ko ëpp gàtt na yàllaa ko man loolu yàlla dana la ko jox te nag dafa lim bi dafa gàtt boo ne yaa qaadiru yaa muqtadir quarante et ba muy quarante et un suur bu fekkee dafa bëri ci yow nga def ko kat <clears throat> nga def ko une semaine ismulaay qaadiru nag boo ci defee liif ak laam mooy trois cent trente six boo ci defut liif ak laam mooy trois cent cinq rek muxtadiru boo ca defee liif ak laam mooy 775 boo ca defut liif ak laam muy 744 moo tax ismulaa yi nga xam ne xaaf moo ko tënkale mbir moo doy waar la mu am solo solo tur yàlla kat bu amul solo amut waaye bu am solo ca jubluwaay ba moo tax ñuy wax jubluwaay xudra yow mi manki manki kàttan soxla kàttan ñaanee ko ci yàlla ci ya qaadiru wala ci ya muqtadiru wala ya qawiyu wala ya matinu wala ya qaharu wala ya qadiru demet turwi wi nag xaasiyaam bi mooy dafa am leer go xamne dafa kep doy nak ndax leer gi kep ko xamne yang koy jofandiko nga bugg feñal lu da la nga bugg feñal yalla atanta yalla yalla yalla nam ko fekk yow nam nga ko te yalla kan namela moy mooy nga gor góorgóorlu ci daw tawasul ci sa borom subhanahu wa taala te do ci xoru do ci xoote do ci xoote man-man do ci xoote katan bu doon toxal ci sax do wa day toxu buy toxal garab-garab ga day toxu ci katna yalla man-manam da ngay julli ñaar rak ngir yalla yonentou subhanahu wa taala dal di jang ñaari tur yi wala ben bu ne 100 boo leen boolee wala nga boole leen ñoom ñaar cent fois deux ans nga yéene ci yàlla dëgëral la sa baatin dëgëral sa saayir dëgëral sa baatin fekk jàpp nga ba set nag euh, même bu fekkee li ngay ñaan lu defal laaj ay noon la nga bugg yàlla noot leen ba li nga xam ne moom nga bugg ci ñoom am yàlla rek am kàttan yàlla da la koy defal fekk def nga ñaari rakka daf yaa qaadiru yaa muqtadiru cent fois wala deux cent fois ba juróom benn fan wala ba ñetti fan wala ba ñaari fan wala benn fan incha allah yàlla dana la ko jox tur wi nag tur wu barka la tur wii ci la yàlla yombalee ba bépp liggéey liggéey ba lu mu diis diis boo ko doon liggéey boo ko doon jëfandikoo doo sonn mukk ci kàttanu yàlla man-manam moo tax nag ñi nga xam ne dañu créer eh, ouvrier yu mag yi tur wi tur bu baax ci ñoom la te fekk ñuy jullit fekk ñuy soxla yàlla soxlaal yàlla moo tax xawiyu ak shadidu foo fekk ak qaadiru shadidu qaadiru xawiyu qadiru yi yom ñooy ànd képp koy jëfandikoo loo bëgg istila istila mooy loo bëgg a loxo rek yàlla dina la yombal nga teg sa loxo wa axiru daawaana an rabbil alamin fàttewu ñoo ziyaare nag waa fayda tijaane ak suma xalifa suñu xalifa ñun ñëpp Cheikh Ahmed Tidiane Niass ñu ngi koy ziyaare di ko nuyu di njabootu baay gi yëpp di nuyu ay imaamul akbar di nuyu Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim di mboole mbooleem njabootu baay gi ci biir ak biti góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi nuyu taalibe baay yëpp soppe baay ñu ngi leen a yëgal ne léeg-léeg ñi ma ñi ci yoo di ñu jot li seen cofeel nee naa leen dee leen ñu ko defal rek hàddiya ñeexal ñeexal Mawlaay Ibrahim te bu leen di fàtte ñaan ñaanal xale yi ndax dañuy jóg bees ngeen ñaanal leen yàlla yàlla gën leen a jàppale gën leen a dimbale ndax seen yéene bi kat bu rafet la mooy jëriñ jaami yàlla yi te bu yàggee it yéen ngeen tàllal leen loxo yalla jëriñ leen waaxiru daawanaa alhamdulilah rabbil alamin wa aleykum wa Al-Fayda Tijaniya s'est réalisé. Alhamdulillah.